Zeyna. Ouh, ta maman, elle sent bien. Ouh, ta maman Vivi, elle sent bien, Zé. Oui, Philippe? Oh, in wedding ding for fa di take 50 cent. wa ay waay waay waay yow Zé. Zé Vivian. Viviane. barki yonent bi buzz, bi wayam bi dama tip? si ñu ne ma déglu hey yaay fii hey kaay kaay Zeyna kaay Zey foo dem ba sa yaay di la woo yow Zey doo saraxe koñ dugg def ci ñetti poto lampe eh waaye xale bi foo doon dem yaa mën a solu kuy sa yaay va i vi ya aya boo mënul solu ma rey la non Zeyna sa yaay li muy way lan la na saraxe douzaine micro Zena ma dem dëmbëri rap? man Zaina dur mai sama xarit atan nga li ma yéenu Zeyna Ndour wàllu waaw ay eh suba ma dugu studio di ma produire Wayo yow Zé man tekki naa yow dinaa ñëw studio ci kanam mah Mazor merci Ndour eh, Mar Ngone Yassine Mar Birahim Yassine Mar Bubai sayai, vivi sayai, va ibi aya. Bubai lá Bubai sabay, eh dama juutal kii parents yi. waaw dama juutal parents yi. ñu ngi dee. j'ai que faire.